Merci, Président Alelo. Monsieur le ministre de l'Emploi, Monsieur le ministre du Travail et des Relations avec les institutions, Monsieur le directeur du ministre maa ngi lay nuyu bu baax di la dalal deuxième fois ci pencum ndaw réew mi di la ñaanal yàlla defal la. ndam ci liñ la dénk di Sénégal yëpp bokk di nuyu ñi nga àndal te sama rakk nekk ci muy soxna Ami Mbàkke ñoo bokk bàyyi kon bu ngeen àndee ñëw fii dina ko nuyu monsieur le ministre nag dinaa tàmbalee samay kàddu ci tàkko bu ma nee tàkko benn xale bu jigéen la tàkko mooy Sénégal indi woon naa muudu muy donga daara bi te tontu woon dama ko waxoon yaayam muy Sëli Sëli Diop jon mu nekkoon yaayam Macky Sall nekk baayam muudu jaaxle woon duggoon ci géej gi dégg naa li tontu indi naa démb Samba ak Demba te nee na Fatma nekk yaay ji Macky nekk baay bi dégg naa la ma tontu ndax sàmba dafa des ci géej gi Demba ñibbisi mais ñu ngi ko turee kër Samba kan ci dag ba nee na man mu laaj dem ba ni man citoyen lambda bi ma nekk man awma sañ-sañ li français yi am ak nasaraan yi ma am ko ci réew mi loolu la ma tontu dégg naa tontam mais xam nga manque de rigueur ak manque de xam-xam ak vision bi chef l'État ak indi te man ànduma ak moom muy PAP 1 PS1 PAP 2A ñu koy développé war nañoo nekk borom yi xam-xam mais pas ngay tontu député yenn façon yi dafay tax que baaxul ci ministère président de la république am na yéene mais sa dommage bari na ñu muy àndal ñoo xamante ni amuñu xam-xam euh, monsieur le ministre tàkko dafa maa yóbbante ci yow tàkko dani ma laajal ma ministre bi nga xamante ni moo yore emploi ak formation damaa jàng ba noppi awma formation am sama xam-xam mu nekk sama nijaay ma jaaxle lool xaw ma lu may def ma di la ko laaj ñu ne ko tàkk lan nga jaaxle mu ne dañoo jël ci budget bi 2012 15 milliards 376 064 380 2013 17 milliards 343 889 680 2014

mu nekk cent 339 milliards 742 millions 405 francs 642 francs CFA takku nee na amul formation te jàng na ba noppi muy laaj nan lay def monsieur le ministre man ma wax tàkku ne ko lii mooy xalaat bi ma xalaat pour wax ko sa nijaay ak wax ko réew mi nañu indil ci Assemblée nationale cent milliards ñu wote leen ko département bu nekk 45 la ngeen dugal fa 20 milliards département bu nekk ngeen créer fa vingt mille jeunes bu ngeen ko boolee mu nekk cent 450 000 jeunes yu am liggéey 50 mooy manqué ci li ngeen soxla woon muy 500 000 at bu nekk mën ngeen def loolu mais li may gën a jaaxal. mooy monsieur le ministre organisation bi nga xamante ni moom la ñu ñàkk. pour que ngeen gën a góorgóorlu ci liggéey bi je vous remercie. merci chers collègues nous passons la parole à notre. je vous remercie monsieur le président messieurs les ministres mesdames messieurs les collaborateurs du ministre chers collègues monsieur le t'adresse mes sincères félicitations à la suite de votre reconduction. Euh, monsieur le ministre, il a été annoncé récemment en Conseil des ministres la création d'un Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes dès la deuxième quinzaine de ce mois, donc c'est imminent. Mon souci est cet organe vient s'ajouter à la pléthore de structures déjà existantes et dont les compétences se chevauchent. Monsieur le ministre, qu'il s'agisse d'ANEJ, de, euh, de la DER, du PSE, pas le grand PSE, mais euh, Programme Sénégal Entrepreneuriat, de l'APDA ou encore de l'ANAMO, on a vraiment l'impression d'un pilotage à vue qui empêche la prise en charge efficace de la prise en charge du chômage endémique des jeunes. Et vous le savez comme moi, c'est ce qui a créé, on ne peut pas s'empêcher de le dire, effectivement, cette tentative de suicide collectif des, des jeunes. Monsieur le ministre, a-t-on réellement évalué l'action de toutes les structures avant d'aller vers la création de ce nouveau conseil d'insertion pour l'emploi des jeunes Et quelles seront la coordination et la nature de la collaboration entre ce nouvel organe et ceux qui l'ont précédé pour une politique de jeunesse véritablement efficace Monsieur bu ma la nuyoo di la ndokkeel di la ndokkeel ñaari yoon parce que ministre nga mbokk ga bawal nga dëkk donc ñu ñu kontaan trop sa reconduction ak confiance su président bi nga bi ñu la delloo mais monsieur le ministre euh, damay seet damay laajte est-ce que yaa ngi évaluer adéquation formation emploi parce que daaw dama la wax fii ci affaire u ndéem ndém di centre de formation boo xam ni ñoom dañu seet ba besoin wu dëkk ba di former en conséquence jeunes yi empêché waxuma la waxuma la immigration clandestine mais ñoom exode rural sax dañ koo empêché ndem may sax donc loolu ñoom Serigne Babacar nee na mu ngi lay gërëm ndax bi nga nekkee directeur dimbale woon nga jigéen ñi bi mais bi nga nekkee ministre donte ni wax naa la ko def defaloo leen dara monsieur le ministre euh, dafa am centre de formation boo dikk waa Bawal. parce que da nga ne ñetti département yi benn lañ ko ciy def man nag baal ma mais jëw naa la parce que bi ma ko présidente conseil départemental waxee nee naa ko xanaa waxoo leen ne am nga 22 millions pour la formation mu ne waaw man ko xanaa waxoo leen ne am nga terrain pour def centre de formation mu ne ma ankay ah, man ko xanaa waxoo ko li ngay def ci CFPT mu ne ma ankay ah, ma ne ko waaye doo am kii bi ndax ministre bi ci région bi la dëkk te day politique la koy yóbbu je vous remercie monsieur le président